asalaamaaleykum mbokk internet Sénégal euh, ñu ngi fii ci cité kër góor gi euh, doon fi kat ki nga xam te ni mooy euh, Ousmane Sonko ci yoono bi nga xam te ne bii dem tribunal fi lay jaar waaye itam jot nañu information comme quoi ni procès bi nga xam ne moo ndox ci digganteem ak Mame Mbaye Niang te nga xam ni le procureur dafa dafa daf ci defoon appel ah, ci procès boo xam ne diffamation la procès procureur defoon ci appel beneen bi tam Mame Mbaye aussi def ci appel donc mu nekk euh, ñaari appel ci benn procès euh, te ñu fàttali leen tam bii passé euh, tribunal dafa daanu Ousmane Sonko 200 millions yoo xam te ni da jox nampaay ci Mame Mbaye Niang te Mame Mbaye nee na xeeb na ko donc mu ngi laaj lu ëppoon loolu te Mame Mbaye Niang tam waxoon na ci ne. bu fekkee ni 200 millions yooyu tribunal jox na ko ko moom dina ko séddale ñi nga xam te ni mooy ñi nekk ci daara yi ak ñi nga xam ne dañoo gaañu ci wàllu événement yi te gis nga. loolu tam mu juróon ay coow lu bëree bëree bëri ndaxte am na ñu ci jotoon génnee ne xaalis boobu lewul donc soxlawuñ ko ci ñi nga xam ni euh, ci waa daara ji lañu askanoo euh, beneen bi tam mooy euh, Ousmane Sonko de moins beneen député wala boog yeneen ñaari député yi nga xam te ni ñoo bokkoon ci yeewi askan bi te bokk ci di parti bi di ci parti bi nga xam mooy PUR ñoom itamit seen procès dañ ko renvoyé donc procès usman Sonko Mame Mbaye Niang le huit mais dañ ko programmé procès bi nga xam te nii mooy euh, diggante euh, Amy Ndiaye Gniby ak ñaari député euh, Yewwi Askan bi itam boobu itam ñu ngi ko programmé le le 15 mai donc incha allahu rabbi njàqare ak tiis bi nga xam te nii population bi amoon nañ ko ba ñu ba ñu bëri liggéeyuñu ñu bëri lalu ñuy seen taabal jaay yooyu yëpp suñu borom def na ci sutura ba xëy na après euh, Korité incha allah lañu yëkkatiwaat procès bi donc euh, euh, ñu ngi nii ci yoon wi doon bëgg a dem tribunal pour wutal leen fa yeneen taataan leen fa yeneen xibaar waaye xamal nañ ne donc ñaar procès yëpp benn amutu ci dañu leen renvoyé ba ci mois de mai donc internet yi ñu ngi leen di ñaan ngeen bàyyi ñu xel lu ci xew rek bu soobee yàlla dañ leen ko indil ci na mu gën a gaawee jërë ngeen jëf ci seen fidélité kon ba beneen yoon.